waaw Pacotille euh, wax dëgg yàlla desem bokk na ci li nga xam ne moo ma gën a ci li ma gën a bett ci sama àdduna ci la bokk xëy na xalaatewu moo ma ko woon foofu yàlla na kenn du xëccoog moom ñun ñëpp dañuy ñaan yàlla rek yàlla may ñu gudd fan ak wér ba keroog ñu fekk leen ci jàmm ak salaam euh, fekk suñu compte yi maanaam la nga xam ne moom la ñuy def lu baax fii ci àdduna bi mu nekk loo xam ne dana fa dañu fa teeru moo xam suñu julli la moo xam suñu jàng alxuraan la moo xam suñu jaamu yàlla la yàlla nañu ko yàlla may ñun ñëpp mais euh, de moom du jaas waaye wax dëgg yàlla bi mu ko yëgee euh, nekk na loo xam ne euh, xaw ma sax lu ma doon wax mbetteel bu bu rëy laa amoon ndaxte circonstances yi nga xam ne dañ ma ko annoncé lu doy waar la ndax Pacotille fii la dëkkoon noor Foire mooy li ma la wax tout ñoo doon nekk tout le temps kuy seet pakoti sax soo ko gisul da nga ñëw seet ko ci kër gi su fekkente ne da nga bëgg a am ay information ci pakoti boo demee seen kër soo laajtee ñu ne la pakoti nekk fa lu ci bari dañuy laaj dañuy wax ni damal gis xaritam bi nekk fii muy Bachir donc on était tellement liés ba la veille bi nga xam ne mi ngi génn àdduna jokkoon nañu téléphone le matin aussi bi muy génn àdduna jokkoon nañu téléphone moo xamoon ma ni mi ngi dem ci ci ci ci ci hôpital bi dafa am benn consultation bu ndaw bu muy def rek boobu yëgagul woon dara sax ci yaram bi xëy na yàlla moo ñëwoon rek alors ci laa toog euh, ay une heure de temps wala ay deux heures de temps après euh, médecin boobu nga xam ne euh, mooy Mbodj te muy def émission boobu ci Walfadjri woo ma téléphone ne ma moom kat dafa dem kër Pakoti laajte ay mbokkam waaye dañ ko indiqué ne ko na ma woo man mi nga xam ne souvent dañ doon ànd parce que boobu jotuñu woon am numéro sœuram bi parce que il vivait avec euh, vraiment ses ses voisins bi ma wooyee mu nekk nit ku am intelligence parce que dama woo ne ma euh, yow yaay Bachir ma ne ko waaw mu ne ma dama buggoon nga ñëw ndaxte sa xarit Pakouti dafa am malaise bu ndaw boo xam ne dañ koy réanimer fii ci urgence cardio dama bëggoon nga ñëw ñu ñu nga assister ko xam nga voilà quoi xam naa ne sax boobu ndeysaan fekk na dog na mais bëgguma ko ndox wax brusquement donc réflexe de médecin le temps que may dem urgence cardio jaar fii ci këram ànd ak euh, benn euh, xale bu ñuy wax euh, Souleymane xaritam la woon tamit aussi Souleymane mi ngi tudd Jules ak keneen koo xam ne mu ngi tudd Elimane nekk suma benn xarit bu baax aussi Amadou Tidiane Fall ñu dugg sama oto di dem bi ñuy dem je pense am na ku ci médecin bi woo ne ko moom mi ngi ci këram këram ak këru Pakouti presque sorewul woon pour ñu dem urgence cardio ndekete moom jóge na urgence cardio ba ñëw këram ndeysaan nee na xaw ma di ut ay papier je pense c'était les certificats de décès on ne pas ñu jiitle bi ñuy jiitlee dem ba ci urgence cardio mu taxaw moom médecin bi nanguwul ñu dugg mbir mi xaw ma jaaxal ma ni mais j'ai pas compris mu ne bon nous sommes tous des hommes euh, li dal Pacoti mën na ma dal mën na dal mun na la dal yow Bachir mën na dal ku nekk donc euh, vraiment am nu ma waxee dal ma ne ko mais que ce qui se passe docteur mu ne ma ah vraiment Pacoti est décédé c'est comme ça que j'ai su la nouvelle imaginel koo xam ne euh, ni ngeen amee liaison boobu nekk en contact permanent ba ci veille bi ak circonstances yi ni mu demee yëpp ñu annoncé ko la ñu annoncé la ko noonu c'est tout à fait normal que nga am loo yëg sa yaram yoo xam ne euh, xëy na yàlla moom mu suturaal mu tudd suñu borom delloo lépp ci yàlla xam ne sallallahu alayhi wa sallam sax génn na àdduna loolu yëpp mu nekk loo xam ne lu ma wàññi lu ma defal ci laa jël suma téléphone nag alors euh, gannaaw ba mu duggee ci biir gis ko bi ma jàkkaarloo ci laa xam ne nag ah wax dëgg yàlla lii moom mënatuma ci dara fekk naa boobu pakoti vraiment mi ngi mi ngi tëdd tëdd tëddaayam tëddaayam bu bu sell boobu euh, nekk comme bu nekkee fii rek bu bu doon toog ba si àgg nelaw wala mu wala mu wala mu wala mu wala mu wala mu concentré wu quelque chose comme ça donc man gëw ni ni yi dem na daal gëw ma ko ne yi dem na mais alors à force de regarder ci laa delloo lépp ci yàlla nag na xam ne lii vraiment yàlla def na li gën ma grand frère am bi euh, dama koy fàtte naar Amet oui Amet laa njëkk woo téléphone bi ma woowee Amet après ma woo ku ñuy wax Max ne leen na ngeen waxtaan ak njaboot gi mais situation bi nii ak nii la tëddee informé aussi tamit cabinet président Wade à travers à son temps Baaba woon moo fi nekkoon. Euh, vraiment mu nekkoon lu doy waar lu doy waar lu doy waar donc euh, parti bi ñëpp riir wax dëgg yàlla ñëpp ñëw au niveau de l'urgence cardio parce que kenn gëmuloon ni Pakuti dem na parce que daraan dundal parti démocratique sénégalais Pakuti nekkoon na koo xam ne su taxawoon ci kanamu euh, mbooloo mi yéeg ci podium bi yor micro rek da nga daan gis euh, ni mu daan vibrer assistance bi parce que dafa amoon fasaa boo waxee dañ ko daan déglu ndax yàlla daf ko mayoon mu am ay vertu Euh, du moins ay ay ay notion yu am solo ci ci wàllu communication amoon si tamit ay vertu morale yoo xam ne ku muy waxtaanal da ngay bëgg mu continuer du jeex pakot yi amoon na culture boo xam ne tey jii su waxtaan ak yow ba ci digg ba mën na ko étayer ak benn aaya alxuraan boo xam ne du génn ci contexte bi la mu lay wax effectivement boo ci référé woo di nga xam ne lii la bëgg wax te lu dëgër lay doon dafa nekk sur des bases rigoureusement scientifiques loolu lañu ko xàmmee woon ci parti démocrate sénégalais mu nekkoon xaritu Bara Gaye xaritu xaritu xaritu xaritu parti démocratique sénégalais yëpp yi nekk biir yëmbal hmm? donc ñu ko fàtte daal mënuñu ko fàtte man mën en parlant de pacoti euh, dafa ko mais j'avoue hein et c'est la première fois ma ma wax ko tey jii fii nii Euh, am naa sama mbokk yu wàññeeku ñu ma jege waaye wax dëgg yàlla li ma yëg ci wàññeeku pakoti yëguma ko parce que sama wétal la woon c'est-à-dire que imaginer nga toog trois ans wala quatre ans wala cinq ans yow ak nit ki pratiquement du ngeen tàqali ko chaque jour fu ñuy dem pakoti moo nekk sama droite man may dawal tout le temps ñooy ànd tout le temps cest à que même même même euh, nit ñi procès Karim yeeg yooyu su ma ñëwee première chose li ñu may njëkk a laaj ana faculté xam nañ ni logiquement ñooy ànd kenn du dem bàyyi sa morom ginnaaw lu dëgg donc mu nekk loo xam ne lu ma lu ma lu ma marqué woon la maa ngi koy jaalewaat encore famille bi yëpp di wax ni vraiment ñu ngi koy ñaanal saa su ne parce que loolu moo ñu dese suñu diggante ak moom mënatuñu ci jot waaye suñu ñaan moom mun na cee jot. kon ñaan yi lañ koy jagleel saa su ne di ñaan aussi tamit sama communication bii nga xam ne maa ngi koy def vidéo bi nga xam ne maa ngi koy def ak yow képp ku ko dégg rek nga fas si yéene ñaanal ci pakoti ak képp koo xam ne génn na àdduna parce que ñooñu ñoom loolu la ñu soxla nañuy toog ba si yàgg ñuy toog di leen ñaanal ñoom di fàttaliku période bi nga xam ne ñu nekk ñun xam ne dinañ leen fekk si ëllëg et puis mu nekk ay enseignement yoo xam ne ku ci nekk war nga ci jàngat bu baax a baax xam yàlla bàyyiwul kenn mën nga nekk ndaw mu jël la mën nga nekk mag mu jël la ku ci nekk aussi tamit góorgóorlu waajal sa bopp doomu aadama nag matul ñun ñëpp matuñu dañuy def ay erreur waaye lu ñu mën a def daal ba wàññi suñuy erreur kenn ku à commençant par mois ñu def ko rek pour gën a rafetal suñu nekkin fii ci àdduna loolu daal mooy li nga xam ne man moom laay dénk en définitive tout le monde Pacotille moom c'était une référence c'était une figure emblématique n'est-ce pas de paysage culturel il était par ses gis ngeen bi mu gaañoo li fa ñëw ci ay ci ay artistes kenn xamul nu mu toll c'est tout le Sénégal qui s'était mobilisé parce que moom moo ko jiwoon sénégalais yi amoon na modestie mosoo koon dégg ci ay coow yu bari mosoo ma ko dégg Pacotille mu coow mosul am nit ku am jàmm la woon. këram ci loolu lañ ko xamee nekkoon na gor bu set huit boo xam ne foo natt baaxam rek passé na ko su may wax ci moom duma jeexal donc lii mooy li nga xam ne moom laa bëggoon wax ci notre ami Pacotille yàlla na ko yàlla yërëm xaaree ko àjjana incha allah. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. jërëjëf waaw jërëjëf maa ngi jéggaluwaat encore ci weeru koor gi di profiter aussi ah di wax ci côté politique bi parce que ñëpp ci loolu lañ ma xamee euh, li may jot ci sama ay message bari na trop ñu may interpeller ci li tax temps yi ma xaw a calme gën nañ ma dégg ci médias yi depuis un avant élection yi lu dara lu dul rek dañu nekk en phase avec les orientations fondamentales du parti looloo tax euh, déggaguñ ñu mais ñu ngi ci liggéey bu baax a baax a baax incha allah bu weeru koor bi jeexee rek di ngeen gis ni on va reprendre du de la bête parce que même il y a beaucoup de questions d'intérêt national qui interpellent le Sénégal yu jar ñu war a taxaw nag saafara ko bu baax a baax parce que dëkk bi bëri na ay situation yoo xam ne jóg daal dafa jot. jóg dafa jot donc maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant.